bii nii xam nga bii dañ koy jël delloo ko këram bu aji saar dañ koy këf yóbbu ko Kédougou boo leen doxale li ngeen di doxalee nii billahi Ousmane Sonko Kédougou lay fanaan l'affaire aji saar boo leen doxalee ni ngeen di doxalee nii toog na yàcc na yasar sa yasar ban xulle di xulle rek toog di xoole Ousmane Sonko laa wax l'affaire Adji Sarr dañ koy infiltrer laa wax jël ko génne ko dugal ko ak lu mu seen seen kii boobu noonu seen seen yi yóbbu ko Kédougou dóor ko foofu noonu encercler town bi ngeen foog ni nii la ñuy xeexee ñun mais c'est quel genre de combat ça c'est quel genre de combat doomi xaraam yi préparé seen vidéo taxaw def nday ay vidéo def seen benn vidéo teg Ousmane Sonko ñëw nuyu Adji Sarr dugg ñu dugg def benn vidéo boo xam ne xaw ma nu ñu ko defaree seen yëfu dëmm yooyu def ba ba mujj ci Ousmane Sonko di def nii di maase wu Adji Sarr ñëw mu koy xëcc Adji Sarr di bañ bañ lu trois fois trois tentatives ñu mujj ñoom ñaar kottante maccante dugg ci biir lu mu tudd seen seen affaire bu dëgg ndayam boobu noonu lu mu tudd lu mu tudd jacuzzi di laalante foofu caméra bi di bouger est-ce que xam ngeen nday ñi lan la ñuy préparé moo tax bu ma leen toog di xool li ngeen di xool nag moolaa moolaa yéen xamul leen nday fu ma nekk man dama pare pour katt la fal nday Macky Sall toj jobb ndayam parce que xam naa plan yi muy préparé man man maa ngi maa ngi biir nday seen seen mafia bi seen biir nday mafia bi laa gis gars yi lu ñuy préparé ma taxaw di nekk ak ñoom di raag ak ñoom di katt nday affaire yi di jaxase nday affaire yi di brouillé nday piste yi di leen dawloo di def lu nekk moom bu ma génnee bu ma génnee nday ñàkkutoo xat di raag ak ñoom ñàkk toog génn jàkkaarloog yéen ngeen di di siñi bëñ damay am envers ak raag ak yéen dama naan mais da ngeen di nalaw ndayam yéen da ngeen di nalaw doo leen yaawu ndayam gaay kat tëral nañ nday seen plan ba nañ Ousmane Sonko la ñuy loolu la ñuy ñëw teg jël këf yóbbu Kédougou dóoru def seen élection ma ne leen makki Sall nee na moom affaire Ousmane Sonko kenn amatul fit wax ko ko ne leen ne me parlez plus de ce gos pale amul ko am fit ñëw toog fekk Macky Sall toog nga naa ko Ousmane Sonko il parle même pas de son nom il il il les a dit ne me plus de ce gosse c'est fini c'est bouclé c'est bouclé la wax c'est bouclé ne me parlez plus de ce gos c'est bouclé ñu nekk ndey ci digg xare bi di toj seen cottu nday fu mu gën a mettee mais ngeen nekk fii di nalaw gaan yéen même même le fait que défendre Ousmane Sonko wala protéger ko sax xëpp ca ndey kaani ba gaa yi duñ toj mais mais mais mais c'est jamais vu ça au Sénégal mais c'est la merde nit bu toog otom nga tàjji ndey otom génne ko dugal ma dégg ay ñenn affaire naan wéy waa bon Ousmane Sonko dañ ko doon défendre moo tax ñu dugal ko ci oto blende what the fuck is going man bu ma leen gisee ngeen di continuer affaire blende blende bi bu ko gis. xam ngeen blindé semi blindé BR ñoom nee nañ semi blindé moo mun a daw Sénégal war bu ma leen gis ngeen di cotiser ak yooyu man maa ngi toog rek toog di leen xool na oto bi ñëw ki sàll mooy jël nday oto bi laa la jox ko ay doomam ñi dawal. oto boobu bu bés bu bés bu ngeen oto cent cinquante mille dugal leen ko ngeen xool di ngeen xam ni Sénégal xool ñoo leen di gën génnal nday ministre de l'intérieur moo leen di génnal nday benn communiqué ne leen lii oto blindé cent pour cent la du fi dugg fi BR moo fi dugg semi blindé. moom la ñoom Moussa Fall yor moom la ñoom ñëpp yor yoruñu ay blindé sax ay semi blindé lañ yor ñu naan ko BR ñoom moom lañ yor ngeen naan di ngeen di yéen dugal ngeen xool Macky Sall mooy jël ndayam ca port ba këf ndayam jël dugal ci parking am ne leen man sama bopp sax aw ma blindé cent pour cent c'est que gars yi nañ am fulla ci lu ñuy def quoi bu dee dëgg la bu dee projet bi jaral nañ ko nañ am ful la ci lu ñuy def nañ am fulla ci lu ñuy def bu ñu naxante bu ñu trahirante nee naa leen bu leen Ousmane Sonko wax na leen ko démb ne leen lu ma projet bi jaral jaralu leen ko te man avant moom waxu naa leen ko li projet bi li ma projet bi jaral jaralu leen ko man projet bi dama cee toll ci suicide individuel pour une résurrection collective lépp man maa ko def maa katt nday affaire yëpp maa ko tay man mii la maa ñëw gis ñuy teg seen plan di teg ni fii lañ koy effacer fii la ñuy éliminer Ousmane Sonko xawma fu ñu jëlee ak Dame Dame Dieng bu leeral ak gaayam yi luñ kat seen ndey dafa affaire bu déggal ndeyam ne moom la ñuy éliminer Sonko moom lañ koy dugal ci jeel bi du dem ci election yi taxaw nag pare ne ñoom pare nañ ci loolu jeex na muy dugg ndey ci affaire di dem di wuti ndey samay kii di jaxase jaxase fu ne mu dugg fa pour kat ndey affaire yi jaxase pour rek jaxasante ay affaire yooyu noonu ba tawloo leen wala au moins gars yi dañ leen suivre quoi de mënuñu nekk di xeexandoo te duñ suivrante il faut ñuy suivrante il faut ñuy suivrante ñu bokk benn équipe bokk benn match ba pare ñi di football ngeen di tëñëx tëñëx xoolal ñun ñëpp dañoo bëgg dugal ci camp bi Macky Sall n'est pas mon ami ku toccottu ndayam la ba mu mënoon xar data ndayam dinaa xar data ndayam ngeen baal ma ci saaga parce que ku carte ndayam la Macky Sall c'est pas mon ami c'est mon c'est mon pire ennemi l'un de mes man Ousmane Sonko nu mu nu ko Macky Sall nu mu nu mu Macky Sall mel ci moom noonu la mel ci man c'est bu ma gisee Macky Sall mooy gis samay butit je regarde même pas ce gars là dama ko xëy dama kat la faral dama ko bañ ba sama moom mooy nit boo xam dama ko bañ au fin fond de moi mais région yi capital moo war a tàkk région yi wuyu mais capitale moo gënoon noy Sénégal capital bi Mbàkke di boyal ndey town bi Bignona di boyal ndey town bi Ziguinchor di boyal ndey town bi ñi ngi maa ngi wax boobu léegi waa KL génn pour ñu boyal ndey town bi waa Ndakaaru ne yambalan yàcc na yasar sa yasar ban toog di xool ñu jàpp Ousmane Sonko di agressé di toj otom di ko génne di dugal ci ay oto di yóbbu ko dugal këram di encercler ba ndi kenn gën xool waa Ndakaaru man Ndakaaru njaal jël jóob jaaxal nañ ma ñoom il faut ngeen bàyyi nu mu tudd si di dem ci shawarma yi hot dog yooyu da leen di noyal da leen lekk da suppu kanja da leen lekk domada da leen lekk sulux mbalax da leen mëkk ci cere ji bàyyi leen hamburger yi ñoo leen no a nooy nepp bàyyi leen hamburger bàyyi leen yi bàyyi leen ndey shawarma yi da leen mëkk ndey ci cere ji da leen lekk ndey ci ci ci ci ci maafe bi ak mbaxalu saalum bi pour mun a wow dëgër këcc di raag ndey di raag bay naaw di raag ba fàtte sa bopp di poyal ndey town bi ana banlieue bi ñun war nañ toog di seetaan nii def nii Ousmane Sonko si suñu kanam ñun war nañ toog di seetaan nii Macky Sall jàpp Ousmane Sonko toroxal ko ci suñu kanam toot ñun war nañ ko seetaan ñun ñun gor lañ gis ñun bu ñu tëddee est-ce que nañ nalaw est-ce que tey ñu leen bàyyoon yéen yéen kenn ci yéen ñu mën a nalaw kenn ci yéen mën na nekk Ndakaaru di nalaw mais ku nelaw doo gor mais xool la nañ def doomu aadama bii nuñ ko def nit bu am ambition kese ñu ne ko doo dox doo génn doo dajji otom fekk ko mu toog ñu agressé ko dàjj otom génn ko agressé ko yóbbu ko dugal këram tëj ci biir kaso bi kan moo war a nekk ndakaaru di nelaw kooku doo gor et puis Macky sàll mais doful dafa réew di napp ndey sénégalais yi naan ay lu fi amoon du fi amaat ba pare di ñu ni du fi amaat kala naxa moo kàtt ndayam Macky Sall lu fi amoon dina fi amaat du kala naxa moo toccott ndayam amoon dina amaat Macky Sall xoole dinañ Dakar sa nga xam ne lu fi amoon dina fi amaat dina nga ne lu fi amaat lu fi amoon dina fi amaat mais gars yi nañ jóg nañ jóg quoi lii nii warul ñaar warul ñett lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw ngeen bàyyi ay affaire yu discours yooyu noonu ay non di ñun ñun on se lamentation mur de lamentation rek depuis boobu Macky Sall gaffe sur gaffe dégât sur dégât mais gars nañ xeex mais lan la ñuy xaarati léegi mais nañ xeex nañ xeex gars yi nañ xeex walla ñu bàyyi les gens se sont donnés à fond tay la seen bakkan tay la seen dund tay la xool faale wuñ seen bopp mais mag mais c'est trop c'est trop gahen trop c'est trop Macky Sall en lépp dafa ëpp Macky Sall dafa ëpp man damay wax sama xol bi di katta ndayam bu ko bu ko rot Macky Sall lu muy def dafa katt la faral ndayam ëpp dafa toccootu ndeyam ëpp quoi daf cottlu fa ndeyam waa ji bu ma yoroon bomb ba katt ko ndeyam ci bopp pa pa pa waaye bu ma yoroon bomb ba toccootu ndey bopp Macky Sall bu ndeyam ci dégg bi cottattat la fal nday lii non waa ji nag ba waa ji non c'est trop c'est trop quoi ah dama toog rek yërëm suñ bopp quoi ma ne Ousmane Sonko ku jara yërëm la mais man tamit ku jara yërëm la kàlla naxa katt ndayam démb rek maa ngi koy wax euh, sama benn grand tey mi ngi koy commenté démb dañuy wax ba xuloo sama grand frère nee naa ko gis nga sénégalais bu ñu génnul nday xeex man ak ñoom dinañ dinañ ñu àtte cour de la haie gis nga sénégalais yi bu buñ gënul xeex damay bàyyi Macky Sall fépp man ak ñoom dañuy dëggante nday bulon ba ba néew yi ba néew yi ba kuñ xool yërëm la parce que man dugg ma tey la nday sama life ndayam ndoog fii di katt lëfal nday Macky sàll di raak ndayam ba tot tot ndayam munu ma dem munu ma dëkk tëju ndayam fii munu ma buuse mètre munu ma dugg nday sama gàlle munu xool nday sama mère munu xool sama faada ñuy katt nday gàlle bi di taal nday di wër di rëbb ngeen toog taxaw xuddi seen bët ku ma fa fekk dinaa xolo dinaa mbéj sa maam ba ba nga néewi toog leen di xoole rek man a yéen dinañu atte toog leen di xoole noonu ah yéen ba ngeen yaakaar ne man dina la toog fii nday ñëf ndey sama live bi ci ci air bi toog di leen seetaan ni ngeen taxaw di mandé sama carrière yéen toog fu ngeen toog ne doo leen xeex di di mandé ba ku ma fa fekk man ak yéen ñooy xeex ku ma fa fekk nga taxaw di xulli ma xeexal nga ne xulli man ak yow ñooy raak man dinañu atte man ak yéen wax naa ko grand bi démb nee naa ko boo deful ndànk man ak sénégalais dinañu atte parce que man ak sénégalais ñoo mujj di fëggante nday kurfeñ ba ma doon seen pire ennemi moom dañuy toog ñu naan leen kaa leen añ ñuy añ seen ceebu jën kaa reer ñuy reer seen cee ñuy ñuy seen cere kaa ndëkk ñuy ndëkk di teg jëm ma toog nday ci sedd bi di bëri ndeyam war a ñibbi sama dëkk mënu ma ñibbi nday sama dëkk sa yaay feebar ba toll ci dund ak dee mënoo koo gis sa baay toll ci mënoo koo gis ñu toog ñoom seen di gis seen po seen yi di gis seen papa yi toog fu ku ko man maay jóg xeex seen xoola sama waay buñ ñu atte quoi loolu laa bañ buñ ñu atte nañ fexe ba bu mën ak yéen buñ ñu atte nañ ñu moytoo atte quoi nañ ñu moytoo atte loolu moom naa leen wax naa leen ko jóg leen ngeen def lu ci war jóg leen ngeen def lu ci war une patrie se compose de morts qui la de et des vivants ni ñuy def Ousmane Sonko du dëgg du yoon teguwul ci dëgg teguwul ci yoon makki sàll moomul ndey Sénégal Macky Sall ay ginaaram nanuñu lii dafa ëpp lii dafa jéggi dayoo xeex mooy solution bi lu dul xeex solution du am xeex mooy solution bi xeex kese kese nañ noppi nañ xeex nañ xeex xeex xeex for leen ndey xeer yi for leen xeer yi nañ bombardé ndey nañ raag ak ñoom amul leneen coow jeex na bu ndox tuuroo an mbaqay des coow li moo jeex nañ xeex nañ xeex nañ xeex génn leen ñu xeex génn leen ñu xeex génn leen ñu libéré wu Dakar yow yaay capital bi yow yaay kilifa gi waneel yoon bi Dakar waneel yoon bi banlieue bi waneel yoon bi région yi topp ñu lijjanti ko affaire Mame Mbaye Niang bu bu mel ni ngeen foog affaire Adji Sarr a gën a garaaw ñoom ci affaire Adji Sarr affaire Mame Mbaye Niang ngeen di coow nii gis naa ñu bari naan noo Mame bi ñu barki rasulillahi du Mame Mbaye Niang affaire bi lu musul am moo am affaire Adji Sarr boo xam ñu bu ko yóbbu chambre criminelle ñu ne dañ koy atte nu mu gën a gaawee dañ koy atte nu mu gën a gaawee ci weeru koor bi taf taf dañuy accuser Ousmane Sonko dañ koy taqal fen ko dañ koy jiiñ viol li ngeen gis sax déjà wane na lépp procès verbal beeg lépp lu ñu def wane nañ détourné lañ lépp dañ ko koy jiiñ te dañ ko bokk buñ seetaanee dañ koy tëj nee nañ du bokk ci élection yi lii lii nga xam ne lii li lii lañ waroon fii lañ waroon defee wan wan Macky Sall ah kaa ñu sport sa kaw tey moo ne woon sport bi tey moo ne woon chauffage chauffage chauffé échauffement mais échauffement bi gars yi gars yi di nelaw tey moo waroon nekk échauffement bi wan Macky Sall ne yegg foofu fii la daqaare sa ndey une bonne fois pour tout mu jeex tey rek gars yi génn kat kat kat kat nday bro dóor teel teel teel affaire yi ta ngi jër fépp di taag tak tak ñu ëpp nday xal bi ne ko <laughs> ñu ngi ñëw gars yi delluwaat tey guddi gi selaw kat nañ day temps bi yëpp selaw ñu ñu dem Macky Sall bu yeewoo day ñëw xool ne ah ñu ne ko waaw lii lancement la boo pare bindal ko lancement échauffement échauffement tey moo woon lancement bi tey moo newoon échauffement boo xam ne dañuy won nday Macky Sall lii lancement la échauffement la ñu ngi lay xaar nag ci affaire Adji Sarr ñu daqaar sa nday ba nga plombé def la fa monument peinture la tey la woon c'était le moment ou jamais mais Macky Sall tey won ñi yéen ki ngeen waaw jàpp sañu leader bi néewal ko doole jàpp sañu leader bi xoñañal ko mel ni kuy foowee benn xale ko fii ngay jaar fii laay jaar bum mbëkkal ko def lu ko neex ñëw kaay génn mu war a ñibbi mu dajji otom génn yóbbu dugal ko tëj <laughs> mais li yomb na de xanaa réew mi kenn nekku fi ñëpp de dee dafa yomb mais leader politique bu mel ni Ousmane Sonko gaañ sa waay ñu koy def comme ku ñuy fooy xale ñoom ñooy entraîné wu mel ni ñoom dañuy entraîné wu ci yéen ci ñun comme ñuy entraîné wu ci ñun quoi ñoom ab leader boo xam toute une génération est derrière tout un peuple est derrière Mame Mbaye Niang moom ci jàmm moom moom moom ñi won ni Macky di ñu won ni man man mais c'est jamais vu ça te Mame Mbaye Niang ñibbi ci jàmm. di def lu ko neex ñu jàpp Ousmane Sonko di dajj ay otom di bënn ay géem di génne di ja di agressé di ko yóbbu di tëj ci këram te ba léegi dégguma ay pneu yi tàkk ndakaaru non man dama joom mi ma joom mi cay waay cay waay yàlla yaakaar tas ay waay ñun bu ñun de Macky Sall yàlla yàlla na ko yàlla toroxal waay ay waay ñun bu bu ñàkkee bu ñàkkee ñu man man di des da damay toog di tiit si sama bopp na ay waaye ñun fël fan fan laa jëm hmm? buñ ko ko xañee man xaw fu ma jëm dina am lu ko jaaxal mais man it dinaa jommi de hmm? yàlla yàlla bu ma natt boobu daal waaye hmm? toog fu ma man damay tiit sax damay des fois tiit damay toog toog naan ay waaye man mbaa li ma dugg xam naa ko ay bu ma seetaanee fii ba ba ba Macky Sall tëjal ma sama waa ji fii hmm, sama dellu dina metti te yàlla kon de xanaa ne ma ma mujjee toog rek eh, xeesal doon tubaab xeesal bay wax tàll doon tubaab wut samay cheveux samay cheveux naturel monté ko si sama bopp bi nag di làkki français nag yàqu naa de mil ay yàqu na ay waay yàq nañ ma waay ay waay yàq nañ ma waay man de foofu laay toog nag jommi ci àdduna yàqu naa de ay waaye man lii lu ma indi lii yàlla bu ñu yegg si foofu waaye waaye waaye yàlla yàlla bu ñu yegg si waay man hmm, fois damay tiit de deux mille vingt quatre ginnaaw dinaa dem des fois sax man ma wëri ay sëriñ ñu xoolal ma man listixaaral ma mais daal ñu may listixaar yëpp neen dinaa ñibbi ci jàmm damay tiit ba wut ak ñu may listixaaral xoolal leen ba xam deux mille vingt quatre est-ce dinaa ñibbi. mais daal bu ñu ma naxul daal ne nañ ma dinaa ñibbi quoi man man moo tax ma ba léegi sama yaakaar tasagul ci peuple bi ba léegi parce que man ñu may xoolal yëpp nee nañ ma dinaa ñibbi deux mille vingt quatre incha allah Sonko toog ñu may xoolal lool moo tax ma am <laughs> yaakaar ni peuple bi xam naa am na lu ñuy xaar am na lu ñuy xaar mais man daal moom des fois damay damay tiit tax damay tiit di la damay tiit naan ay doomu xaram ji bu fi toogaatee man fan laa jëm ay waay fan laa jëmati gars yi nañ def nañ nañ résistance gars yi résistance cawarte résistance résistance résistance dañ bàyyi affaire manipulation ñun buñ dox ci manipulation maa ngi gis ñu dagg ay ay photo naan ñooñu ñoo leen gën a nekk nit bu ñuul kukk kukk tubaab amu ci ay tubaab amuñu ci ne mais gars yi manipuler daxasoo ci suñu masse bi di manipuler il faut qu'ils arrêtent c'est tubaab amu ci ñi nekk ci photo yi ñuy foowee bàyyi leen loolu tubaab amu ci barki alxuraan tubaab nekku ci ay nit yu ñuul kukk lañ ak ñi xees ak ay ñi ay ay ñi xeereer tubaab nekku ci benn tubaab newu ci ku leen wax tubaab nee ko moo laa nee na da ngay fen tubaab amu ci dañuy duul tubaab amu ci benn tubaab moom dañuy kàcc waa GIGN la waa bib la ak ay nervi moom mooy police euh, euh, euh, lu mu ministère auprès du ministre auprès du ministre de la nangam démb ci guddi amul benn tubaab.